C'était à l'instant Sotisol et Nyashinsky dans cette belle vidéo qui démarre votre émission Made in Africa, la première émission de variété musicale panafricaine. Amis téléspectateurs, merci de rester fidèles au programme de la 2STV. Il est 14 et comme il est de coutume sur votre première chaîne de télévision privée du Sénégal, voici la MVP qui s'installe pour la numéro ici au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, Made in Africa, la complicité avec les artistes, les producteurs, les promoteurs, les managers, le meilleur goût, de la musique africaine. euh, un DJ de renom, euh, il va me dire s'il est le plus payé au Sénégal ou l'un des plus payés. En tout cas, il est parti remporter les Afrima Awards, mesdames et messieurs, qui est trophée boo xam ne euh, trophée bu jéggi dayoo la ñu bëri ñu ngi ko doon xëccoo en Afrique mais aussi à travers le monde. alors ñu nominé woon ci doomu Sénégal muy DJ Dollar mu dem euh, jële fa n'est-ce pas loolu di ndamu Sénégal di ndamu Afrique parce que je rappelle aussi nekkuloon di représenter Sénégal kese mais c'était le seul DJ d'Afrique francophone qui était nominé à ces compétitions mu dem euh, jàkkaarloog wala boog jàmmaarloog ñoo xam ne vraiment poids lañ à travers le monde et en Afrique mu remporter trophée bi indil ko Sénégal nee naa leen ñun ci musique lii mooy suñu coupe du monde lii moom moo nekk suñu coupe de coupe d'Afrique n'est-ce pas lii lañu am mooy suñu artistes yi dem di di jëli ay raaya award nag bu ko waxee loolu mooy tekki ci olof raaya n'est-ce pas donc euh, dañ lay ràññee ci benn domaine boo xam ne ci ngay yëngatu ñu ràññee ni euh, maam yaa ngi ciy def excellence yaa ngi ciy am perfection waaye itam euh, yaa ngi koy doxalee ni mu waree ñu nominé la ci nit ñi ñëw voté ngir nga mën a remporter loolu la Didier Dollar demoon défi euh, foofule c'était à Texas Las Vegas foofu la demoon nee naa nag y a deux Afrima à chaque fois la ma leen koy rappeler ci émission bi bii mooy Afrima bi nga xamante ne moom mooy amee aux États-Unis mooy African Music Magazine boo xam ne day regrouper képp kuy star ci musique africaine du musique kese waaye am na aussi fashion dañ fay def fashion donc loolu yëpp dollar demoon na teewee ko daa dina ñëw ci plateau bi euh, gën ko yaatal gën ñu wax euh, li jëm ci expérience boobu nga xamante ne amoon amaloon na ko fa waaye aussi ci loolu dañuy profiter rek euh, rendre hommage à Thomas Sankara ndax ñëpp xam nañ ni tey la am 31 ans bi nga xamante ne homme d'état anti impérialiste mais aussi panafricaniste boobu génn àddina ñu boomoon ko n'est-ce pas donc mu nekkoon chef d'État bu Burkina Faso de 1983 3 à 1987 donc euh, Thomas Isidore Noël euh, Sankara ku nga xamante ne euh, xeexkat la woon ci lu jëm ci panafricanisme képp ko bëgg Afrique rek bëgg ko waaye itam nga ñu bëggoon li nga xamante ne loolu la doon taxawee Afrique ci loolu on va au Burkina Faso pour voir cet artiste qui est signé à Sony Music il s'appelle Hawa Boussim Koragéré pour le plaisir de tout le monde restez connectés Made in je suis à la BIM Goré Goré Hawa Boussim de tout le monde alors euh, j'en profite pour faire un coucou à tous mes amis émission les Camerounais hein l'ambiance camer les Ivoiriens, toute l'Afrique et à la suite de cette émission la Gambie on arrive inchallah le 27 nest pas euh, ñu ngi ñëw Pencami Hall ak Amadou Viper de ñun la dollar tamit mu ngi ñëw foofu xaar leen ko incha allah en décembre incha allah Gambie euh, mu ngi ñëw foofule euh, tout de suite une autre vidéo et je rappelle aussi que vous aurez en exclusivité l'interview qu'on a eu à faire avec Kiss Daniel ici à Dakar donc euh, je rappelle qu'il a été ici pour faire une vidéo. C'était la vidéo des Major qu'on l'occasion de suivre aussi. Donc, euh, je rappelle que loolu aussi DJ Dollar liggéeyoon na ci ci direction artistique bu vidéo boobu noonu daañu ci waxtaan loolu itam. alors c'est juste après cette vidéo de Means Odo pour le plaisir de tout le monde juste après ça reçoit DJ Dollar live on Made Africa ok ok c'est le prince d'Adj grosse grosse force à Made Africa avec El MVP on est ensemble comme jamais oh, oh. oh. Euh, J'étais à l'instant euh, Mins Odoyewu, n'est-ce pas Alors, euh, le gars que j'invite là, moom moo nekk ki nga xamante ne c'est le plus présent dans l'émission euh, Made in Africa mais c'est toujours pour moi un honneur et un plaisir de l'inviter donc euh, parce que kuy upgrade la à chaque fois dafay upgrade ci li nga xamante ne euh, moom lay def te Made in la fi nekkee di encourager mais aussi di promouvoir ñi nga xamante ne à chaque fois dañuy upgrade ci seen domaine Didier Dollar bonjour bonjour euh, El Habib. <laughs> naka Amérique. mi ngi fa rek Amérique mi ngi fa xam nga. mi ngi neex. mi ngi neex incha allah balaa Amérique foog nga jógoon demoon nga. Paris waaw. yaa ngi woon Paris ak Luxembourg. ak Luxembourg j'avais un concert avec. Euh, euh, un showcase avec MHD un showcase avec MHD on avait une soirée. Mm-hmm. je devais faire je devais être le DJ officiel de la soirée. super et puis on l'a fait au Luxembourg ça s'est bien passé. c'était bien passé en guichet fermé. Mm-hmm. donc je passe le coucou même à mon public. je disais tantôt que tu es l'un des DJ. les plus payés ou même le DJ le plus payé donc loolu il faut nga <laughs> non parce que man xam naa à travers le monde Calvin Harris est le DJ le plus payé. Ouais. mais au Sénégal DJ de l'art la. non bàyyi yooyu. saa yi yéen nag fa nga ñuy permettre ñun tamit ñuy jàllale yenn information yi donc dama ne parce que man wóoruma dama ne c'est l'un des DJ les plus payés ou léegi nag yooyu yaay wax ndax tu fais partie des DJ wala boog ci es le. ñu ngi yàlla. <laughs> macha allah alors maa ngi lay jaajëfal bàyyi la nga nuyonte ak gars yi seetaan. si waaw maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp yu 2STV yi. ak mm-hmm. euh, euh, waa ñi seetaan aussi Made in Africa. Mm-hmm. so uh, di leen uh, nuyu bu baax a baax parce que sénégalais yi awma seen fay. Mm-hmm. tey lii ñu teg nii ci kanamu plateau bi su fi nekkee c'est grâce à eux. c'est grâce à toute l'Afrique francophone. donc maa ngi nuyu ñëpp di leen ne ñu ngi nii ci plateau bi live and direct. Mm-hmm. DJ Dalla El Habib MVP. tout à fait made in Africa. alors euh, balaa balaa balaa nga doon dem Afrima Awards dañ la dañ la defaraloon nomination. exactement donc euh, balaa boobu aussi jotoon nga fi jaar alors. bi nga bi nga recevoir mail. Mhm. ñu ne la tu es tu es nominé au Afrima Awards parmi tant de DJ lan lan moo nekkoon sa émission lan moo lan nga filan non en fait euh, li ma fil bi ma yónnee mail bi pour ne ma dañ ma la nominé dama mhm. dama kontaan. Mhm. dama kontaan du fait que mën na représenter sama réew muy Sénégal. Euh, bu weesoo loolu aussi dafa nekkoon encouragement. pour man parce que xam naa ne. bu ñu demee ba nominé ma 2018. Mhm. ça veut dire que bi ma def ci mhm. euh, am na ñu ci teg seen bët. baax euh, donc motivation la ak encouragement. bu mhm. mu def ci man bu bëri sax. bu baax bu baax alors ñu nominé la ñu commencé vote yi. Ah, ñu bëri nag jàpp ci ah. du Sénégal kese je le rappelle. Afrique francophone parce que man gis naa yeneen artistes Afrique francophone ñu ngi la doon defal ay job pour gars yi dem. jàpp ci vote yi parce que tu étais le seul qui représente. qui représentait l'Afrique francophone Exactement. à ces compétitions alors loolu aussi fierté la woon bu baax a baax a baax hmm. nga nekk sénégalais dem représenter toute l'Afrique francophone au Afrima Awards mu nekk euh, un trophée qui est prestigieux alors lan nga am message bi nga xamante ne moom ngay lancer en Afrique à euh, partir de tey message bi may lancer à partir de de d'aujourd'hui mooy euh, comme ni ñu unité bi ma gis ci biñ a nominé par rapport ak euh, Afrique francophone bi yëpp. Mhm. c'est-à-dire tous ces artistes qui ont eu à me soutenir. à mhm. publier sur leur réseau. Mhm. pour que la communauté de l'Afrique francophone vote pour moi. maa di remercier di leen euh, di leen di leen ne trophée baa ngi nii et puis aw ma seen fay. message bi ma ciy lancé mooy juste l'unité parce que j'ai senti l'unité sur ce coup. tout à fait les gars et je rappelle que tu étais nominé. avec euh, dans la même catégorie avec DJ Copy ce sister du Nigeria oh. DJ Neptune Nigeria DJ euh, Joe Mfalm Kenya mm -hmm. DJ de la Kenya DJ euh, Elio Baemo Angola mm Domi Tanzania mm Black Coffee South Africa DJ Slim Ghana DJ Spinol Nigeria yeah, ak DJ ah, nomination yi génn nee naa saa bi xat na de mhm, xatoon <laughs> bi xat ah donc euh, vraiment gis nga message bi ma la jour bi bi résultat yi génne fajar laa la envoyé message j'ai même pas pu dormir parce que waaw nelo nelawuma <laughs> parce que bëggoon naa euh, fekkee loolu couvrir ko ah, di wax aussi gars euh, comme ñun maison yi ñuy liggéeyee parce que ñun aussi dañuy war di fekkee yooyu mm. je rappelle que man jotoon naa sama invitation mais c'était à la dernière minute donc souvent bu ñu la couvrirul ci sa média aussi c'est des difficultés pour à la dernière minute nga mën a dem couvrir lu noonu mm, au niveau du ministère de la culture ñi nga xamante ne dañuy def journalisme culturel nañ leen ci jàppale bu baax comme journaliste sportif yi. ni ñuy demee di couvrir ay match de football ak yooyu doomu Sénégal bi ñu ko nominé ci ay Afrima ci ay maa ngi lay ñaanal nga dem ay BET Awards. MTV Base maa ngi lay ñaanal Grammy Awards n'est-ce pas. donc ñu dem ci yooyu aussi ñu mën a dimbali euh, animateurs sénégalais yi pour ñu mën a euh, dem ci loolu mën a couvrir représenter seen réew bu baax a baax a baax ndax Didier Delargue keroog. waroon na fa am ay sénégalais ay journalistes sénégalais yoo ne taxaw nañ vraiment fier filmer loolu lu am solo la on va aller sur une vidéo tout de suite n'est-ce pas c'est la vidéo de MTI et on revient sur voilà donc moom la ñu doon seetaan noonu MTI alors gis nañ ñëw si nga am euh, complicité bu mag mm-hmm. ak plein d'artistes africains muy muy ci espace anglophone di espace ou francophone aussi n'est-ce pas parce que gis nañ la tu as eu à faire des des des scènes avec Wizkid. tu mhm. as eu à faire des scènes avec Davido. Toufane n'est-ce pas. Mm. Euh, Booba. Booba si ouais. je me trompe pas. MHD mm. dernièrement. ak yeneen ak yeneen artistes. Mm. donc euh, lien boobu naka nga ko naka nga ko créer sa diggante ak artistes yi. de toute façon lien boobu après c'est venu naturellement. d'accord en fait booy booy booy seq gars yi liggéey peut-être. di ko teg ci yoon. di ko teg ci yoon ça ça ça les fait plaisir. Mm. dañuy bëgg a développer benn lien boo xam ne. Mm. c'est au-delà même du du mm. du di dem ba nekk benn famille. donc xam nga loolu moo ma dal ak artistes yu bëri donc. Euh, on est devenu très proche et puis à partir de là. Mm-hmm. ñu continuer liggéey bi tamit quoi. tout à fait alors euh, dernièrement sax euh, ci techno bi mu fi ñëwee aussi. Mhm. defoon nga seen ak moom ba ci une interview donc euh, ci le premier DJ boo xam ne am nga sax interview ak CNN. ak CNN nest pas donc ñu defoon ko fii. loolu aussi mu nekk lu am solo toujours rek di fësal li nga xamante ne moom mooy suñu flag nest pas suñu mhm. drapeau. Mhm. di fësal aussi li nga xamante ne moom mooy suñu culture. di di di wax nit ñi rek ni. mën nañ n'est-ce pas il faut qu'on aille les choses il faut que ñun ñuy dem di wuti information bi n'est-ce pas il faut que ñun ñuy dem di wuti information bi ñu mel nii xam naa déwoon naa ñu demee waat di jëndu laar ci beneen awards mais bi yoon dama bëgg euh, au moins deux mille deux millions de sénégalais ñu voté ñu voté waaw n'est-ce pas parce que ñun Sénégal lii la ñu xam dañu xam suñu doom bu demee ñu sot jàpp ci bu baax a baax waaye yéen ñi peut ñi bu ñu ko deful xëy na dañu amul information. Mhm, damay wax aussi yenn télé yi ak yenn rajo yi information yu ni mel boo ko déggee bul xaar sax dollar woo la diw woo boo ko mhm. déggee rek dee ko publier n'est-ce mhm, ñun rek lay yóbbu kanam parce que dollar bu demee kanam man sama liggéey day dem kanam parce que man ak moom dañuy collaborer. ah day am artiste bu fi nekk mu woo ne ma booy kaay dafa kii interview. Euh, di anniversaire yi. bi day waaw African Victory yi naka la yaa ngi ak ñoom ba tey. ñu ngi ñu ngi ñu ngi Diop euh, de passage maa ngi nuyu jëm si. Euh, mm-hmm. ak euh, sama frère Nix. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. African Victory mi ngi fi ba léegi ah. ok et cool. ñu ngi ci kawam quoi ñu ngi ci Diop. cool Nix James si Dj Dollar Dollar bi nga demee Afrima toog ci salle bi. waaw ñu ne ladies and gentlemen. <laughs> best African DJ of the year. the winner is nan nga def en plus en plus man sama catégorie lañ commencé hausse bi en fait. sa sa catégorie la ñu déparé. sama sama kayit yi <laughs> ah, maa bëri kayit. man xam nga départ moom daf ma neex man damay bëgg a. waaw da ngay bëgg ñëw sànjaafu affaire yi départ rek pare ci xam naa sama ma doon. bëgg gaaw dóore laay doon. gars yi ñëw rek wax affaire best African DJ. yee gars yi ñëw best African DJ. Mm-hmm. xaw a def seen. seen suspense yooyu sànnu suspense yooyu. waaw waaw waaw waaw. saal bi et puis affaire dafa feesoon. saal bi dafa fees dell xam nga. dafa fees donc y avait tout le monde xam nga africain yi nekk. africain yi ñëw ak américain yi. xam nga tout à fait tout à fait. donc euh, après bi ñu dawalee seen sànnu suspense yi ñu ne DJ dans le Sénégal. oh xam nga après mais nag gis nga moment boobu laa bëggoon fekkee <laughs> non mais loolu dafa rëy parce que xam nga trophée bi. de toute façon après naa récupérer vidéo yi au moins. jox defal loolu defal loolu xam nga ay jafe-jafe technique la ñu am. moo tax mënuñu ko jàllale. gis nga trophée bi am na ay artistes ku ci mel ni Diamond Platnumz mhm. bi mu ko ñàkkee dafa dafa dafa dafa jooy de. non bien sûr. il a pleuré. bu ñu ko jëlee jox ko Eddie Kenzo. pour te dire rek wax la valeur trophée bi. affirmation bi alors. fàtte naa ni yi teg nañu téléphone bi sax ayca ñu jël kooku allo allo. allo bi na def waay. ayca kooku dem na mën ngeen ñu woo 88 628 14 13 ou au 33 841 23 34 ne indil na ko Sénégal euh, donc mu nekk trophée boo xam ne sénégalais yépp a ko bokk vraiment fi Afrima 2018 n'est-ce pas di ñaan aussi mu am Afrima 2019 ayca alors dañu dem xool sa vidéo avec Nix on va voir un extrait ah Pamay donc ak Ousmane ñu ngi ci régie bi on va voir un extrait de cette vidéo mm. et on revient je rappelle que l'interview avec Kiss Daniel on va passer ça aujourd'hui ñu am ci aperçu daal di koy commentaire ñu dem xool vidéo DJ Dollar bi et on revient ayca di ci jaajëfal Doudich euh, Choco depuis Vélingara il est à la suite de cette émission merci beaucoup mon frère Max le DG de Najla Najla Hôtel euh, di nuyu aussi suñu grand Hamadi Koulibaly depuis Bordeaux donc euh, di kontaan si ñoom rek ñoom samay partenaire lañ partenaires yu solide foofu ci Vélingara Max ah Max Mbaguette Najla di kontaan si moom bu baax a baax a baax nan fexe nag dollar mii mu ñëw ci hôtel ba ah. <laughs> ah donc ñoom aussi ñu ngi leen di xaar ak euh, ñu ngi leen di waajalal benn événement foofu foofulee donc euh, di ko jaajëfal di jaajëfal aussi euh, madame Bari bu baax n'est-ce pas donc sama xarit la sama rakk la jaajëf kontaan si moom bu baax a baax alors dernièrement Kiss Daniel. Mhm. dafa changé turam léegi ah Kiss Daniel bi lañ ko doon wooyee bi mu nekkee G Worldwide mhm. mais léegi dafa am en compagnie bu tudd Flabo Inc. Euh, mu changé turam tuddee boppam Kiss danielle di produire boppam waaye di produire signé aussi yeneen artistes yooyu yëpp waxtaan nañ ci mais Major Lazer nga xam ne Diplo DJ la ci mu bokk ci ñi nga xamante ne ils les mieux payés exactement ah, euh, dollar da ngaa mën laqati de ah, yow noo mën lijjanti gaa ñooñu <laughs> ay ci ñu jël kooku alo allo allo oui sëñ bi na def waay noo tudd foo may woowee allo. waaw allo yaa ngi may dégg. déglu ma ci sa téléphone waaye déglu ma ci sa téléphone. allo. allo waaw yaa ngi may dégg. ndeysaan ay waaw problème mu réseau waaw waaw problème mu réseau la bu ngeen wootee da ngeen may déglu ci seen téléphone bañ ma déglu ci télé bi n'est-ce pas alors euh, Diplo nga xam ne bokk na ci DJ yi nga xamante ne ils sont les plus payés je rappelle que DJ euh, euh, Major Lazer c'est un groupe Ah, c'est un collectif. Ouais. C'est un collectif, un collectif qui, de DJ, voilà, ouais. qui, est créé en n'est-ce pas Il est composé de, de Gillionaire, Diplo et Watchfire, n'est-ce pas Donc si je ne me trompe pas. Allô, ñu jël kooku allô ayca kooku dem na waaw ligne yi dañuy lay def DJ dollar moom bu fi toogee xat lay def <laughs> ah ayca kontaan si ñooñu bu baax a baax a baax nan nga nan nga nan nga créer lien boobu ak Major Lazer ba euh, tey parce que bokk nga aussi ci ñuy jaay suñu culture am ñuy jaay destination Sénégal parce que tey ku ku ku ku mel ni ñooñu Médou Leza ñu yónnee fi kiis Daniel nga war a gérer direction artistique bu clip boobu mm. ba tey ñu defee ko fi yóbbu image Sénégal jaay ko jaay car rapide mm. n'est-ce pas jaay suñu plage yi mm. n'est-ce pas donc loolu lu am solo la naka naka nga gérer lien boobu tont tontul ma door a ñëw ci téléphone bi. mais di Africa boo ubbee téléphone problème non lien bi en fait euh, c'est simple comme li ma lay wax rek liggéey moom boo ko tegee ci yoon. Mhm. après si euh, euh, à la base Ninka Ninka Mbaye. Mhm. donc koy nuyu sax au passage. Chalaat waaw ak ak Nix. Nix am tam liggéey nañ ci liggéey bu am solo. xam ak Baye Souley aussi bul dof moom mi géré habillement bi habillement yi donc euh, franchement ça ça a été un plaisir ñu def loolu. ayca ñu jël kooku ci bi allo. allo waaw waaw ñu ngi sant bu baax. mbaa yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant bu baax ayca noo tudd maa ngi tudd Amady Diouf. waaw. dëkk Liberté 4. dëkk Liberté 4. Magu Magu DJ Dollar. jaajëfatee ah, waaw waaw waaw. waaw. jaajëf ah, waaw bëgg maanaam euh, gërëm DJ. waaw. Euh, ci liggéey bi nga xamante ni moom la def Sénégal yëpp. war ko xam. mu war a nekk lu nga xamante ni nii ndamu Sénégal rek ndax gis nga drapeau bi ci kanam. donc euh, ñu ngi ci ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ko di ko béggee. Mm-hmm. Euh, di ko rafetlu loola lool lool lool. jaajëf ndam la boo xamante ni bii Sénégal mm-hmm. yëpp la. Mm-hmm. waaw di leen gërëm nag di leen sant ci émission bi. ayca di ko rafetlu. kontaan si yow jërë ngeen jëf. jaajëf nañ jërëjëf di kontaan si moom bu baax a baax a baax alors euh, gis nañ aussi euh, Kiss Daniel ñëw vraiment il a apprécié parce que bi ma amalee ak moom interview bi c'est ce qu'il m'a dit il a apprécié l'accueil découvrir na Sénégal et il a envie de faire des concerts ba ne ma sax moom yow rek la xam <laughs> ba léegi ni may wax ak yow sax bi may dem di def si émission di ñëw ci yow. Mhm. mi ngi may ne ndax amul lien bu ñu ko mën a seetaanee internet et tout. Oh. si tout à fait dinañ la 2 moom ñu ngi ci digital bi. exactement ñu ngi def télé mais aussi ñu ngi ci digital bi. Euh, bu ñu paree di nga mën a incha allah lien bi dina disponible ci YouTube. kis moom sama boy la quoi xam nga donc du coup. Euh, kis Daniel boy bu am talent la boy avancé nañ ci musique de. <laughs> ay gone yu ndaw. boy ils sont loin baax na ayca jotoon na en tout cas euh, am benn interview bu exclusif ak moom. Mhm. vraiment c'était Euh, ñu seetaan ci benn extrait ñu ñëwaat incha allah. ak ñu dem xool interview bi ñëw. wala ñu jël ko ko ay ci waaw ñu jël ko Omar jox ñu ko balaa balaa yëf yi di yemb fële ah. Bonjour amis téléspectateurs de la 2STV, merci de nous retrouver dans Made in Africa, la première émission de variété musicale panafricaine ici au Sénégal en exclusivité. Euh, c'est un plaisir de vous recevoir, n'est-ce pas Aujourd'hui, en exclusivité première, nous avons un artiste qui pétrit de talent, un artiste reconnu sur le plan international. Il est nigérian, il passe par le nom de on l'appelait Kiss Daniel, mais maintenant on vu qu'il a changé de nom, ça s'appelle Kiss Daniel, et on l'appelle aussi Vado. Alors, tout ça, on va parler de ça avec lui, mais on va essayer en anglais, essayer de, de faire bouger les choses, n'est-ce pas? Um, hi, kids. Yeah, man, what's up, man? How you doing? I'm good. So, say hi to Senegalese people watching. What's up, Senegal? What's up, Senegalese people? Uh, it's a great privilege to be talking to you people, you know. One love and one Africa, man. What is the, the, the motive of your visit in Senegal? Oh yeah, I'm here for Major Laser's shoot. Okay. Um, they put me on the record with um, Cranium right. from Jamaica, so we we here to shoot the video, yeah. and also to drop off on my my brother DJ Dollar, you know. Yeah, DJ Dollar Senegal. Yeah, you know the biggest, you know. Yeah, man. Yeah. All right, you launch a new label yeah. called FBI. Yeah. Can you talk about that? Okay, um, Flyboy INC in full, founded by me, uh, December that's my business, That's my company. Uh, it's not just a record label; it's an entertainment company. Okay. Okay. Yeah. So we have all the um, sectors. we do all planning and all that. then we have the record label part, which is mm, apparently the most popular part. It's a flyby and see record. Yeah, you got two artists signed. Yeah, I just signed MEV and Field Case. All right. Cool. Yeah. Can we wait for them to? We're actually dropping. A, we're actually dropping a record together very soon. All right. Good. Yeah. Let's talk about No Basol. Yeah. Your album coming album. Yeah. I'm following you. I'm trying. <laughs> that's that's that's a crazy ass. Sorry, can I say ass? Yeah. Um, no, no, no. That's a crazy album. You know, it's a crazy album. I've got um, I've got some um, I've got Major Lazer on the album. I've got my artist on the album. I've got Reg, um, Reg 23 or Reg 32 something from the UK. I've got um, Simi Nigeria on the album. So that's pretty much it. Yeah. You spend more time Niger- in Nigeria or outside? <sighs> Now I spend more time in Nigeria. In Nigeria. Yeah, yeah. Unlike um, earlier this year, I was just everywhere. You know, in the UK like two months, in Canada like three months. you know, just on and off like that. Okay. Do you have a date for dropping your album? Not yet, but definitely next month. Okay. Yeah. Do you know any uh, Senegalese artists? Singer? No, no. Oh. You don't know Youssou Ndour? What? Only DJ Dollar. You know, yeah, DJ Dollar. <laughs> just DJ Dollar. <laughs> DJ Dollar is actually big in Nigeria. Yeah, yeah, he's he's yeah he's the biggest DJ in Senegal. They yeah. they know him everywhere. I have uh, my colleagues do talk about him. That DJ Dollar, you need to meet him. La, la, la. Ah, cool, cool. Can we can we attend any collab with DJ Dollar? Yeah, <laughs> definitely is getting a collab. You know. Thank you. Yeah, you're Thank welcome. You. Yeah. Yeah, on, est, on est très heureux en tout cas de, de l'avoir, Kiss Daniel. C'est une interview très exclusive, c'était pas du tout prévu, n'est-ce pas Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons deux STV. Can you, you have some words in French? What? Like... <laughs> Thank you or oh, see you soon. Or... Oh. which one is Je m'appelle? Je m'appelle is My name is. Oh, okay, so which one is thank you? <laughs> like, what? How do you say thank you? <laughs> Thank you, merci. Mercy. Mercy. <laughs> Um, you don't eat chebujan? Our national um, jollof rice. rice. No, no, no, no, no, no, no. Like actually, you guys are just I don't know horrible hosts. You know, nobody. We've not even left the hotel ever since we. Yeah, yeah. Like, and I have to leave like 5 a.m. in the morning. You know. Senegal is waiting for you for a big show. You know, yeah. on day, inshallah, very soon. Alors les promoteurs. Hein? DJ Dollar, il est là, parlez à lui, n'est-ce pas? On attend un grand, grand événement de, de Kiss Daniel parce qu'il a beaucoup de fans. You have many, many, many fans in Senegal. many fans in Senegal, more ladies. <laughs> ladies like, you know, um, Vado. No, commandant Vado, il est là. Merci, c'était un plaisir et on se retrouve euh, très bientôt, Inch'Allah, pour une autre interview. Merci beaucoup. Allez, gis ngeen loolu nga xamante ne moom la ñu amaloon euh, ci hôtel bu mag boobu la di Radisson amaloon fa beneen euh, benn interview ak euh, Vado de commandant Vado Keith Daniel n'est-ce pas le patron directeur général de flabo Inc. Mm. il rappelle que aussi Flavor Inc. c'est pas qu'un label n'est-ce pas boo xam ne daf ci signer artiste mais c'est toute une compagnie boo xam ne dafay liggéey ci lépp lu jëm ci wàllu entreprise mu ngi koy doxal moom da nee na yow kese la xam parce que tu parce que bi muy ñëw dañ ko ne waaye dollar dollar dollar dollar il faut parler à dollar il faut nga dégg dollar donc euh, film boobu lan nga koy lan nga koy doxalee. non ça fait euh, ça fait vraiment plaisir loolu xam en fait bu gars yi demee ba ràññee sa liggéey. ba mun la boole ak gars yi nii easy. Hmm. parce que xam nga mooy li ma lay wax rek source de motivation la pour moi. tout à fait pour man damay door a door en fait. donc booy door a door di am motivation yu mel noonu da lay gën a encouragé nga nga gën a job quoi. Mhm. donc euh, maa ngi koy remercier di ko nuyu au passage. parce que mhm. xam naa ne dina seetaan émission bi après. Mhm. donc euh, voilà kiis sama kiis la quoi. xam nga yeah a all right bro. dina man sama émission bi yaa ngi ko yóbbu Nigeria man xam nga leen dañu may sa Nigeria. Angola fépp laa may xarit léegi si si si <laughs> shout out to TK Wiri TK Wiri Nigeria product yeah TK eh, Wiri suma bro la um, thank you and see you soon brother naa mi alors euh, je rappelle que bi ñuy def interview bi daf fi ñëwoon pour euh, un clip n'est-ce pas loolu lañ doon wax léegi léegi mooy clipu Major Lazer mm. clip bi je pense que bi ma ko seetaanee j'ai l'impression que c'est tourné entre le Sénégal et la Jamaïque. Euh, ouais, Cranium que, je pense que moom parce que parti wu Cranium euh, Jamaïque lañ. Jamaïque lañ ko tourné léegi parti wu Kiis moo nekk fii. Dakar moo nekk Sénégal mais comme li ma lay wax rek à chaque fois dañuy bëgg a mettre en valeur euh, Sénégal. wallaahi waaw liñ fi am. liñ fi hmm? am ci ci ci couleuru Sénégal yëpp muy car rapide muy monument de la renaissance muy. Euh, suñu gaal yi muy suñu plage yi suñu gaal yi suñu surfeurs yi. everything xam nga Sénégal rek lañ am. Allez, on va découvrir cette vidéo ensemble. On va regarder ça. Ça s'appelle Loyal. Major Lazer, Kiss Daniel and Cranium. ñu dem seetaan loolu. wala ñu jël ko ko Omar bu la neexee de ay ñu jël ko allo allo allo. allo. waaw allo sëñ bi na nga def waay. waaw ça va Djé Niang. waaw. il faut nga jël ma Vélingara j'appelle de Vélingara. c'est monsieur. monsieur Daouda Thiam. père Thiam. monsieur Thiam vous allez bien. oui monsieur Thiam de la Sénélec. oui Thiam Sénélec. ça fait plaisir de vous entendre. tout à fait. jaajëf papa maa ngi lay déglu waaw. na nga def ça sant yàlla bu baax a baax. bien mais maa ngi rafetlu émission bi. jërëjëf jërëjëf papa. di la gërëm di gërëm di dollar. ay eh, jërëjëf parce que DJ Dollar def na lu am maanaa lu am solo. macha allah. pour Sénégal nit ñi war a roy ci moom roy ci yow. macha allah. macha parce que lii mooy jëmee réew kanam. wallaahi. nga dem di jongante ci yeneen yeneen euh, ba yàlla def yow nga jël ndam bi indi ko Sénégal tegal ko drapeau bi mu nii de drapeau baa ngi nii trophée baa ngi nii waaw dégg naa la nag nga ne yow nelawoo jour boobu parce que yow dafa pare rek nga envoyé ko SMS mais yow tamit aussi gàcce nga laama jërëjëf jërëjëf ah, kii sama nit la man bu ñu woowee artiste sénégalais fenn rek sama hmm. papa kontaan nañ de voilà man maa ngi Vélingara mm-hmm. waaw je suis à Vélingara quoi dama repliqué ma tombé ci émission bi ma suivre quoi. ça ça fait plaisir tonton Thiam. c'est vraiment plaisir waaw. mais vraiment kontaan naa dégg naa sa gars yi nga lim waa laa ñoom ñëpp ak waa waa Vélingara je suis très content de vous. Hmm. jërëjëf. ok à la prochaine. allez à la prochaine tonton Thiam merci beaucoup. di la jaajëfal bu baax a baax di kontaan si moom bu baax baax a baax tonton Thiam allez on va aller regarder cette vidéo de Major Les Infections avec Kiss Daniel et Cranium ça s'appelle Royal. Loyal, très belle vidéo de Kiss Daniel, Cranium et les Major Laser. Alors, ba yan parti ngeen vidéo bi Sénégal fii euh, am na Wakam. Wakam euh, ci terrain tout à fait. am na fële ci plage ou corniche ou Almadi mhm. mhm. am na aussi euh, voile d'or ak plage. ok yëf yi kañ lañ koy fete euh, yëf yi moom am na am na bësam quoi. bii de ah waaw samedi euh, samedi 20 20 bii nii samedi hmm. prochain 20 octobre. 20 octobre euh, Vogue. alors ñu ngi leen di woo ñu ngi woo ñëpp le samedi 20 octobre. au Vogue n'est-ce pas donc ak DJ Dollar ñu dem célébrer n'est-ce pas trophée bi Afrima Trophy bii n'est-ce pas. gis naa ne sax suñuy partenaire ngeen ci championnat boxe bi où y'aura. waaw waaw Sidiki Diabaté oui oui la 2STV partenaire. exactement ñooñu artistes yooyu yëpp tam dinañ ñëw ci. ci paari bi. jeex na donc Sidi kii dina fi nekk Kifno Beat n'est-ce pas Nix aussi la légende que euh, je vais recevoir inchallah très très bientôt sur ce plateau on va parler de son album damay xaar nag am chroniqueur parce que Nix moom légende la boo xam ne man ba muy rap gone laa nag doo ñemee yàlla waaw da ngay xool ku xam nix bu baax. Hmm. nga ñëw toogloo ko mu ñëw def chronique ci émission bi. moom ñeme yàlla ci télé baaxul. <laughs> nix légende la yàgg nañu bercé ak ay ak ay hit n'est-ce pas donc euh, shout out to him aussi euh, les Afrima. Mm-hmm. Euh, All African Music qui se profile à l'horizon inchallah ce au mois de novembre donc euh, donc am na ci 32 sous-catégories réparties en deux catégories donc les catégories régionales et continentales je que ci loolu Viviane Chidid elle est nominée la catégorie Best Female Western Africa Wally Seck Myrna Sur le titre, Nirna est nominé dans le Best, Artist Group in African Traditional. Donc, loolu aussi ñooñu ay doomu Sénégal lañ Made in Africa est là pour tout le monde. dem leen ngeen votel Viviane Chidid ak Wali Seck ngeen votel leen n'est-ce pas donc euh, parce que Afrima yu aussi Afrique Afrima yu am solo la. mu ngi am à partir du 21 novembre au Ghana. Hmm. n'est-ce pas foofu lay amee incha allah votel leen doomu Sénégal. votel leen doomu Sénégal yi ngir yàlla ñuy jëm di indi ndam si suñu réew mi. góorgóorlu leen ci waaye musique bi mën a dox si kanam ñun mën a dox si kanam ah mën a <laughs> mën a lamb poos di ci fekk dara ah parce que animateurs yi balaa ñuy dem faaw DJ yi dem artistes yi dem bu ngeen jëmee ci kanam rek le Nigérian c'est comme ça. dès que les artistes décollés les DJ sont partis les animateurs radio télé. bu ci fexe ba am industrie musicale rek nga yóbbaale ñëpp. ñëpp nga DJ yi danseurs yi graphistes yi ñëpp nga yóbbaale. ñëpp nga yóbbaale euh, alors ñu ngi ñaan ñëpp ñu dem botel suñu sister Viviane Viviane euh, Wally Seck di féliciter encore une fois Pape Diouf. Mhm. n'est-ce pas ci Bercy bi mu amal. donc di ko ci féliciter bu baax a baax a baax di wax dorénavant aussi artistes sénégalais a pare Wally Seck na dem Viviane Chidid na dem. Hmm. gars yi nañ ñeme yëf yi. ni ñu ko def euh, au même moment tamit euh, hmm. waa euh, ce qui m'a vraiment fait plaisir mooy au même moment Pape Diouf di di di di def Bercy. Hmm. où il y avait vraiment du monde. c'est en en en ce moment que Bouba était à Arena tamit Bouba sénégalais la mais mu fees del fële. bu baax gisee fermé na fa c'était à 40 000 places. 40 places bi ma gisee drapeau Sénégal bi Dakar bi franchement ça ça fait vraiment bu ngeen di def accord hôtel Arena boobu ngeen di dem Bercy léegi ñoo leen ci Dakar Arena bii. waaw promouvoir Dakar Arena bii. ci def spectacle waaw. waaw 15 waaw foofu de ah. de la wax <laughs> sur ce plateau. et merci beaucoup. Uh-huh. donc je t'ai ramené ton trophée comme euh, je t'avais dit rien n'est impossible. vraiment waaw mi ngi nii et euh, sa yëf la quoi. Hmm. donc du coup ci début ma ko ne woon rek ba jaay or bi yëpp laay jaay. en tout cas maa ngi tam <laughs> comme j'avais di di ko DJ hmm. DJ yëpp. ak hmm. notamment DJ bi ma jàngal mix muy DJ G-Bass. DJ G-Bass ak waa MCU Wakam gars yëpp. trophée bi seen trophée la ñoom DJ Paul DJ You everybody Da Flex ñoom ñëpp. DJ Sénégal yëpp. trophée bi DJ Mef Skills DJ Momo Vogue ñoom ñëpp. ku ci ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom everybody di kontaan si ñëpp n'est-ce pas ñu jàppoon ci vote bi ba Didier Delarme dem remporter li nga xamante ne moom moo nekk trophée Afrima bi nekk nii ah, ñu bind fii Afrima 2018 best DJ Africa DJ Dollar Sénégal. DJ Oudou sa trophée. waaw ñëpp seen trophée 2STV sa trophée. parce que kat yàgg nga collaboré ak. non mais noonu la 2S sama kër la. waaw di profité di nuyu Abdoul ak. Euh, Abdoul Ndiaye waaw Abdoul sama bro. waaw ak euh, Pape Sidi aussi. Pape Sidi di nuyu Amdi. am di aussi tey la anniversaire am le 15 octobre waroon nga màgg ne Thomas Sankara nag béy di di ko jaajëfal di jaajëfal ñëpp rek caméraman yi équipe technique bi nga xamante ci émission bi di leen jaajëfal Africa est là pour la musique africaine c'est un plaisir merci beaucoup on se retrouve lundi prochain je m'appelle El Habib MVP